آه، يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جنابني سنتي على جل شيرنتبي صلى الله عليه وسلم نيجي نيان بروم بي تبارك وتعالى مبولنيو دفع التوفيق آه، نيجي فاسيني أنداتك ينتسنيو درس جواهر الرسائل آه، الحاوي بعد علوم وصلة الوسائل مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله رضي الله عنهما فنجم نرى أن war سنو آه، نعرف كيلو لاتر ci بنا ñaar ñaar fukkeelu lettre bi nag ak juróom benn muy lettre bu am solo boo xam ne Baye Niass radiallahu anhu yónnee woon na ko ay mbokkam ginnaaw ba ñu tiitee ci ay mbiram ni noon yi di jëflanteeg moom ci ay xeetu liggéey iñaan ak yu bon yi nga xam ne ñu ngi ko doon teg ci deram di wax ni moo yàq di wax ni yéeféer la di wax ni faasiq la di wax ni moo yàq tariqa bi di wax ni mooy dofloo doomu jàmbur yi lu ne ñu wax ko waaye nag loolu daf may fàttali rek jamono ji nga xam ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ànd nag ay saxaabaam di leen jàngale alquranul karim gars yi dañ koo joxoñoon ne ko dof nga ba suñ borom ne nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ñu jiiñ ko ne njabarkat la suñ borom subhanahu wa taala ne wa ma huwa bi qawli saaxir jiiñ nañ ko lu ne ne xale koy jàngal xale boo xam ne ci àll ba la koy fekk mu jàngal ko innama yuallimuhu basar suñ borom ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam mos sa jàng lu ne wax nañ ko ko waaye suñ borom subhanahu wa taala daf nekk wallahu yaasimuka min annaas ismatu googu nag dafa royaatal ci Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bi nga xam ne moo doon lépp yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lettre bi ku ko jàng sa ci yooyu rek lay dem Baye Niass radiallahu anhu dafa bind lettre bi mbokkam mi muy alhaadi ibn alhaaji abdillah di doom baayam ki noonu Cheikh Mahmoud Diop di bàyyi ci Oustaz Mahmoud Diop Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ak Cheikh Ahmadou Thiam jàllale woon nañ tarjamaam ci lettre yi ci ginnaaw Cheikh Aboubacar Mariama euh, euh, muy lu am solo euh, Seydil Haadi Ibnul Haaji Abdullah nag kenn la woon ci doomu Maam Alaaji Abdullah yi nga xam ne dund nañoo Cheikh Ibrahim jamono dund ci xam-xam tedd nga bokk ci ñi daan jihaad ànd ak seen baay eh, ba nga xamee ni gis nañ li feeñ ci Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci ay xeetu xéewal yoo xam ne gisuñ ko feneen tuddut ci moom muy fayda bi eh, ñoom ñi ko gën a jege ci deret xëy nañu topp ko ci la ko toppee ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu xeeñ eh, ci ci moom li ñu tuddee alhidaaya rabbaniya njubag yàlla waaye nag mu ko amee ci coobare ak bi tabaraka wa ndax sa doomu baay yàlla defal ko ay mbir nga mën koo topp ci yaatub dënn loolu lu jafe jafe jafe jafe la waaye nag baay radiallahu anhu ba ko yàlla defalee lim ko defal mbokkam yi wuyu si ko ci wooteem bi bokkam yu ko wuy si woon nag cheikh alhaadi ibn alhaaji abdillah ñii ci la bokkoon ba nga xamee ni nag euh, noon yaa ngi koy sonal noon yi sonaloon nañ ko lool ci la bind lettre bi yónnee leen ko ngir ñu dalal seen xel lettre boobu moom lañ fas yéene jàng tey Baay radiallahu anhu euh, dafa ñëw rek boo xoolee bokkut ak yeneen lettre yi ni mu daan ubbee euh, sant yàlla julli ci yonant bi euh, kii dafa bëggoon dara seen xel rek ñëw rek ne xadratul ax alwalad al aarif billah yow sama mbokk yow sama doom te pourtant ñoo bokk baay waaye doomam la ci ci ci xaqiqa waaye doomu baayam la ci li nga xam ne moom mooy mbokkook deret amma ci mbokkook xaqiqa nag baayam la alhaadi ibn alhaaji abdillah mu ne salaamun li ak nuyoo la goo xam ne mumtasijun mi ngi jaxasoo bi sawqi ci cofeel anta wa man maaka min al ahbab jëm ci yow ak ñi nga nekkal ci ay soppe muy Seyd Mahmoud Diop Seyd Ahmad Cham Seyd Aboubacar Mariama من اللي تعلم بأني وقفت على كتابكم خملا يجلن نجتنا سن لاتر وما هالكم مما شاهدتم أكليل ألم تلين يندقس وسمعتم يندي دق من المكر كأي تخي والسحر أكنجبر يني دف مجمت من فعلمون أن خمي أني من باي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ديت بخي ولا قوة ولا دوتياجي نكتن illaa billahi lu duwul ni ci yàlla lay jugee al ali yàlla mi di aji kawe al azim mi nga xam ne mooy aji màgg bàyyi ne sami'tu min lisaani man laa yantiqu anil hawa dégg naa ci làmmiñu waa ji nga xam ne du wax ci caaxaan te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne yàlla wax na ci alquran ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa wax na ma ni an maxluqun aslan kaayinan man kaan bindee fa yàlla munumaa lor ku mënta doon nag munumaa lor moo tax ma ne la ismatu googu yàlla defaloon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ko wàccee mu royaatal ci bàyyi radiallahu an mu ne nag wa qad utiitu min al umri atwala mimma utiya li walidi rahmatullahi alayhi yàlla jox na ma ci ay at yi ma war a dund lu ëpp li sama baay dund yàlla na ko yàlla yërëm wa hada lawla kawni muraadullahi فلا أحبه من نك أديو بريو بنك نم نم بيالا تيمن بغمك فإني سئمت من هذه الدار لمن ضيالنا تكرك أدونا جي لما فيها من الأكدار نخليكي نك فاستلك أي نخنخ لكن الخير في مختاره الله في مختاره رب العالم وهي نك يو نجي تليلا يالا تانر وأبشركم ما لندي بها ci leen ci ci ci lii ma leen di wax ne leen noon mënaluma dara li taalamu an laa yaqa fiya illa ma tuhibbuun ngir ngeen xam ni dara duma dal lu duut li ngeen bëgg ci man rek walhamdulillah maa ngi sant yàlla awalan ci njëlbeen wa axiran ak ci mujj zahiran ci li feeñ wa baatinan ak ci lu nëbb loolu la leen bàyyi wax ngir dalal seen xel ila an qaal ba muy wax ni aslaha allahu shu'unana wa shu'unakum yàlla na yàlla yéwénal seeni mbir yéwénal suñuy mbir wa kashafa kurubana wa kurubakum yàlla huññil ñu suñu njàqare huññil leen seen njàqare bi jaay xatatul itlaaq ci darajay péeb itlaaq wasalaam wa kataba ibrahima ibn alhaaji abdillah bi koosi ibrahima ibn alhaaji abdillah moo bind li ci koosi 1349 ci gàddaay gi